mbokk yi euh, nuy man le sen député euh, Guy Marius Sagna man le sen ndaw euh, seen surga Guy Marius Sagna gis ngeen góom yi nga xamné mom lañ ma dafal defal ndax té suñu policier yi ñenn ñok président Macky Sall da leen jox ordre montre ça voilà président Macky Sall da leen jox ordre nañu bayyi di tirer grenade lacrymogène ci kaw ndax té yoonu grenade lacrymogène moy kenn kenn waru ko tirer droit kenn waru ko tirer di viser bop wala yaram wala tank waaw gis ngeen pantalon bi nu mu mel di gis euh, marque bi nga xam ne mooy euh, bi d'accord donc moom moo def góom bi euh, nekk ci donc lii lu muy wane mooy président Macky Sall tey jii ni mu reyee suñu fukk ak bant ci mars 2021 noonu la continuer rey ay doomu aadama waaye dañuy xamal wala candidat président Ousmane Sonko dina nekk candidat du ñu nangu mu liquider beneen candidature xeex bi day continuer daanaka sax commencé gul na xam ne jël suñu bakkan du tax xeex bi jeex gaañ ñu du tax xeex bi jeex et que du ñu nangu résidence surveillée bi nga xam ne moom la ñu teg président Ousmane Sonko du ñu nangu ñu liquider ko politiquement ba du nekk candidat du ñu nangu mu liquider keneen may wax sénégalais yi nag président Macky Sall moom mii di détourner am amu Sénégal moom moo war a daw. ñun grenade lacrymogène waruñu dawlo ñom ñi sacc alalu rewmi rey François mankabu rey ñenen ak ñenen Mariama sanya suñu fuk fuk ak ñenti bant ci mars 2021 ñom ñoo wara daw donc ñun waruñu daw ci kanamu ay grenade lacrymogène waruñu daw ci ay kanamu sirène waruñu daw ci ay kanamu auto police ak auto gendarmerie xex bi nak day euh, euh day continuer daanaka mu ngi soog commencer la lutte continue et seule la lutte libère kuy bëree dande kuy bëree daan te incha allah dañuy daan Macky Sall président Ousmane Sonko nekk président deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre yëpp nekk ay candidat jërë ngeen jëf.